jërë ngeen jëf euh, mbokki internet yi ba tey rek dalati leen ak jàmm ñu leen di wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moo di nag euh, keneen koo xamante ne rek daal di jël bakkanam say xibaar ñu gis ko rek si réseaux sociaux yi ñu ne rek foofe sa Touba Mbacké la muy tudd ki nga xam ne moo di Mor Talla Diop dëkk rek foofe sa jàmm gan daate rek demoon màggali fi nga xamante ne si moo di sa Touba Mbacké ñu ne rek ab borom sareet rek moo jël bakkanam nekk si rek mercredi euh, su guddi rek la loole mbir moomee daati am mu doon mbir mu xamante ne ba tey euh, daat nas koy ñaawlu tamit ci lool moom koke di Mor Talla Diop demoon rek màggali jóge woon foofe sa jàmm gën dem màggali sa Touba Mbacké daat fe rek jote ñàkk la nga xamante ne si ne moo di bakkanam ñu ne ab sare ci rek moo jël li nga xamante ne si ne moom moo di bakkanam mu doon mbiri xamante ne si ne jamono ji lis koy fii taal si réew mi daati nay bëri lool waaye nag moom i la mbir it dana si leen ko toppal ak lu waral loolee ak naka la demee ba xam rek ak mbir maat fan lay mujjee ñeel ki nga xamante ne si ne moo di Mor Talla ñu Mbacke moo jël bakkanam foofe sa Touba Mbacke ginnaaw ba mu jóge ko fii si jàmm gën demoon màggali foofe sa Touba Mbacke